salaamaaleykum mbokk internet yi tey ñu ñunam daal di ñëwaat euh, ngir seq yéen waxtaan lu am solo lu jëm ci lii di maladie à Covid 19 nga xam ne euh, jamono ji mi ngi lëmbay askan wi fii nag ñu ngi ci place baax nekk place bu mythique euh, ci taarixu diwaan bu Tëngéej boo xoolee sunu wet ñu ngi fii ci wetu ci peggu marché central bu Rufisque nekk marché central yi gën a màgg ci région bu Dakar nga xam ne nag fu nekk askan wi fu nekk la ñuy bàyyeekoo di fi ñëw di fi fréquenté dinañ dugg ci biir seq ak waxtaan ak ñi fiy jaay ak ñi fiy jëndan ndax respecter mesures d'hygiène yi nga xamné li di kilifa sanitaire yi dañ koo ngir fagu ci maladie à Covid 19 ginnaaw ci loolu tamit amna ben benn xibaar bu fi jot a rat xam le ne préfet bu diwan bu Tëngéej dal dina ne ben circulaire di ñu xamal né à partir du 13 avril magasin yi ñuy jaayee lekk rek moy faral di tijji magasin yo xamné li ñuy jaay jëmawul dara ci euh, mbirum lek dañ koy faral di tëj dañuy dugg ci biir xol ndax digle yoy ñu ngi koy wëyee

ne leen takk yi ñëpp seen i masque ku xëy na nga am masque boo xam da nga koy takk protégé pour client yi xam nga yooyu itam ñu ngi si moom ñu ngi góorgóorlu ñu ngi mën moom wax dëgg yàlla ñu ngi si moom la mobilisation moom wax dëgg moom lu wóor ba wóor mooy ñun moom ñu ngi def suñu matuwaay lu ñu si suñu wàccee nañ raxasu ñu ñëwee nañ ñëw suñu masque jéem a xool de protégé parce que tamit matuwaay yooyu ñuy wax jaa war a jàppale itam yu bëri tam ñëw waaw boo desee lii rek la ñuy jox te démb lay doog a ñëw démb la ñu koy doog a andil waaw pour ay raxasukaay yoo xam ne moo nekk ne pôle yaa ngi ne bu bu ñëwee ku nekk ku ñëw dem raxasoo yooyu noonu suñ ñëwee ñu wàccee dana ñu wàcc nañ dem raxasu moo nekk na le waaw mais comme ni nga wax noonu nu matuwaay contrôle léegi yooyu bëri noonu yooyu moom moo gisaguñ ko wax dëgg moom ñun jël suñuy matukaay bu baax ndax boo gisee ñun vétérinaire bi ñëw na fi démb nee na képp kuy buuse na nga wut gant masque xam nga ndax pour ñu mën a protéger feebar bi bu baax. marché lañ nekk xam nga ñuy jëlante ay xaalisax yooyu mais suñu tooxee dawal tuuti jël euh, xaalis dañuy dem ut euh, saabu ordinaire bi nga laxas suñu loxo ñëw ndax gars yi tamit mënuñu ko liggéeyee tàmmuñu ko xam nga ko taxee 30 minutes day tax daree tax yooyu te dañuy zoné te yenn clients yi dañ lay xaw a ragal xam nga moo tax bu ñu taxee liggéey benn 30 minutes dañuy dem ut euh, saabu ordinaire bi raxas suñuy loxo yor nan ay bërigo yoo xam ne def nañ ci eau de javel ñu raxas suñuy loxo waaw mesures yi moom marche centrale ñu ngi koy dund ci comme ni ko président waxee rek ñëpp waxe ko noonu parce que yaakaar naa mesures yi président jël moom président gënuñoo bëgg suñu bakkan te lii comme luy laaj bakkan la ak yeneen coono yi mu àndal yaakaar naa mesure bu ñu fa teg koo xam ne yaa ngi dox ànd ak sa xel da nga da nga topp mesure yooyu surtout ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy euh, euh, euh, nun koy waxee te sax ñun ñooy ñun ñooy président marché yi maanaam ñooy délégué de marché yi nga xam ne war a jóg ngir taxawu askan wi di leen yee ci ya nga xam ne xamuñu ko loolu ñun depuis boobu ba léegi ñu ngi ciy dox comme ni ñu ci war a dox yaakaar naa am na mesures yu bari yuñ fi jël ya nga xam ne dèjà bi ñu koy jël sax ñun fekk nañu ñoom comité bi nga xam ne moo fi nekk nii avant muy taxaw moom di di boo fekk na ñun waa marché jën jóg nañ ba jël suñu matuwaay depuis ba feebar ba commencé lan commencé jëndal suñu bopp yëpp madaar yeeg saabu yeeg paani raxas yi marché bi douze port moo fi nekk douze portes yi ñun porte bu ne jënd nañ paan teg fa buñ xëyee dina ca def omo ak eau de sawel raxasuloo nit daal lenn sax moo ñu xaw a manqué ndax comme ñun ay jaaykat lan buñ xëyee mënuñu bàyyi sunum jaay taxaw ci paan yi di wax nit ñi raxasu leen loolu moo ñu xaw a manqué ñu ngi koy jéem waaye loolu moom maire yi ñoo leen ci waroon dimbale may jox ñu ay ay quelques personnes xam ne dañ taxaw ci buntu di raxasuloo nit waaye ñu ngi ciy jëm duñ mën ñun délégué yi ñooy jëndal suñu bopp ay masque jënd ay gants te di ko séddale yeneen yeneen jaaykat ak ku ci mën a def sa sa kam laay kattan loo mën a jënd nga jënd ko parce que comme ñun ñun joxuñu ñu dara te liggéey bi doxatul moo tax dañ ciy dimbale waale yenn clients yi ñi ak ñi amut lu ñu jënd ay gants ñu jënd ay gants jox leen ku la laaj ñu jox la comme ñun dañuy dañuy xaalis toujours te xaalis bi xamoo fu muy jógee xam boobu moo gën a nekk danse sax comme yaa ngi jël xaalis xaalis bi xamoo fu muy jógee normalement war nga sol gant ba nga xam ne booy récupérer xaalis bi xëy na mu yem ci gant bi loolu lan jublu ci gant bi gant bi war nga ko ci moom surtout loxo bi ngay nangoo xaalis waaw waaw mesures yi yéen fi jëlagum yëpp respecté woon nañ ko dèjà mesures yi njëkk jël muy tëj 4 heures bi ñun ñoo ko waxtaan ak ñoom ba jubóo ci xëy na ñoom sax waxoon nañ lu gën a teel loolu parce que ay 13 heures 14 heures lan ñu waxoon ñuy ñaan di waxaat ñoom ban indi ko 15 ban indi ko 16 cee ànd bokk ànd ak ñoom bu baax fi mu boo fi ñëwee 16 heures doo gis picc ci ci bi waaye nag nun mën a def ba ba mi gën a wàññiku kooku dañ ci d'accord te boo gisee mesures yi ñu jël nii xam naa loolu lañ ci jublu gouverneur ressort Dakar dégg naa ko mu wax la wax dégg naa ko li ñu ci jublu mooy fexe wàññi mbooloo mi muy ñëw marché su ko defee bu fekkee li nga xam ne mën na ñàkk produit yi nga xam ne tey dañ koy lekk mën ta ñàkk ñu bàyyi ñooy ñuy jaay ñi nga xam ne nag yooyu ma bagage yooyu du du du obligatoire kenn ku nekk war nga ko mën a muñ yooyu ñu lan wax pour ñu tëj ñooñu nag euh, bu fekkente ne ay ay citoyen la ay sénégalais lan comme ñun dañuy xam ne lii moo tax dañuy xam ne lii ndogal la ba nga xam ne ci borom la jógee ñu nangu ko képp kum doonoon ci ñun nit da nga koo war a nangu. yàlla ak dogalam waaye olof Ndiaye dafa ne xoddeeku bala ngaa lakkale waaye askan wi ab dëgër bopp bu mat sëkk la ñu seetlu ci ñoom ci jamono jii. dëgër nañ bopp trop ndax man mi nga xam ne maa nekk ci porte bi man xam naa ci dara nit damay romb sax may sotti ma ne doo raxasu nga ne ah jaru ko romb ma ma ne la tey ngaa ñëw raxasu rek ñëpp dañuy xëy ci seen liggéey man ma xëy ci ndoxu raxasu yi pour bëgg rek nit ñi protéger seen bopp képp kuy dugg ci marché bi di fi fekk ndox ndax loolu def nañ ko bu yàgg nga raxasu doog a dugg di nga ñu jàppale jàppale sa bopp. commanda dëgg na tànkam ñëw ba fii mu ne nu ngeen mën a def ba nit ñi du ñu dajaloo daal ngeen def ko ñun tamit biñ bi ñu ko waxee dugg nañ ci marché bi dugg nañ ci mbedd yi fu nekk wax nañ ko. man moom sama xalaat bi ma déggee ñuy tudd Kër Massar li ma njëkk xalaat mooy Kër Massar moom normalement diggante li li lee diggante Kër Massar ak Tëngéej moom dañ ko war a dakkal. parce que loolu moo gënoon a gaaw tey tey oto waratoon a jël jóge fii dem Kër Masaar Kër Masaar oto waratu woon a jóge jëm fii ba yëf yi pa jóge fii mu nekk loolu moo moo gënoon a gaaw sax parce que tey marché fii ni fii nii ñun client yi ñuy jaay Kër Masaar ak Kër Mbay Faal ak côté yëpp la ñuy jóge banlieue bi yëpp dañuy ñëw fii di jënd fi jënd marché jënd marché jënd bii nii ñëpp la ñuy am kon tey su cas communautaire amee tey ñun daf ñuy tiital trop parce que ñun moom ñooy encaissé ñëpp tiit nañ ci bu baax a baax mais nag ñu ngi ñu ngi moytu comme liñ mën waaw tey ñun man ñun délégué tey bu bu bu 3 heures bu jotee rek dañuy dàq nit ñi pour ñu génn marché bi marché bi du fi des. mbokk yi yéen a ko gis ngeen incursion bi ñu leen defal fii ci marché central bu Tëngéej dem nañ marché jën. dem nañ Massa Yab doxantu tamit ci xaalu Adama Lo ak yeneen xaala yu ko wër Tunguene du teew ñu nataal daanaka benn comportement changé fii ci marché central bu Tëngéej comité départemental de lutte contre l'épidémie jël na dogal ngir tëj xépp boutique boo xam ne jaayul lekk circulaire boobu démba ci altine bi yemook fukki fan ak ñett la waroon door jotul tamit ñu xool wala kilifa yu diwaan bu Tëngéej jël ay mesures dëggal ko ngir dakkal bépp activité fii ci marché central bu Tëngéej nga xam ne mën nañ koo jàppee lii bombe à retardement